cant ak ngërëm ñeel na leen mbokki internet yu partout TV yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy safoo saa su nekk ci bàyyi xel gi di leen di jaajëfal ci topp gi bu fekkente ne gan nga rek di la invité nga abone ci chaîne bi euh, te nga j'aime bi say commentaire ñi ngi koy xaar dañu daal di dellusiwaat rek ci mbir mu nga xam ne jàpp nañ kënikat sénégale yu baree bari jooyoon nañ ko fi suba ak ngoon guddi ak bëccëg euh, di problème ki nga xam ne rek moom moo di ndey xaddi Ndiaye moom mii nag borom salon bi di Sweet Beauté yaakaar naa miin nañ ko ràññee ko nekkatul rek ñuy présenté fii ci biir réew mi ci jafe-jafey kii di président Ousmane Sonko Adji Sarr moom mi kat gannaaw ba mu daal dee dund li nga xam ne moom mooy di ay jafe-jafe yu méttee métti ci nguuru kii di président Sall bi yoon naka ñu daal di gis kenekat ñii di patriotes yi ci réseau sociaux yi ña ngi koy daal di delloo njukkal bu baax a baax ci ay commentaires yoo xam ne rek ña ngi koy amal nekkat bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di taxawu komba bi xeex ba kii di président Ousmane Sonko daal setal gum ko setal deram gannaaw ba Adji Sarr daal di yëkkati ay kàddu yu tuuma teg ko ci kawam bu fekkente ni woon complice rek jamono bi ñu toll nii kii di Ousmane Sonko dina daal di des ci euh, kaso bi ndaxte kat moom mi nga xam ne rek moom moom salon bi moom moo génnee lépp loo xam ne rek ay preuve la fekkoon jamono boobu sax mu ngi woon ci ay xat-xat ci digganteem ak ki nga xam ne rek moom la ko yàlla boole loon di ab ëmb boo xam ne nemmeeku woon nañ ko ci ay jamono loolee lépp rek mu daal di koy boole pour rek fas yéene daal di am ndam ci kanamu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yëkkati woon tuuma bi ni mel daal di koy teg ci kaw ndoddam ba ñu convoqué woon Kafi sax ba ñu baree bari jàppoon kenn dina daal di tëdd moom mii di ndey Khady Ndiaye wante kat bi la yoon ci paasam bi gannaaw ay commentaire yoo xam ne rek yu positif la yu ñuy nemmeeku kenn bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoo sauvé li nga xam ne moom moo di procès bi ci diggante moom moo di aji Sarr mbir moomee bokkoon ci li nga xam ne rek moom moo gënoon a fees di leen di jaajëfal eh, ci topp gi safo gi ak faale gi seen yu YouTube Partout TV ngeen wéy di abonné